mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullah di nuyu waa Sénégal gépp di nuyu tamit waa Géejawaay ñu am yéene nag tey waxtaan ak yéen ci lu gàtt rek ci lu jëm nag ci wàllum ay résultats yoo xam ne dañu koo génnee am foo xam ne nag dañu faa teg euh, ville de Géejawaay waaye nag bu ñu sañoon mu nekk ay résultats yoo xam ni dafay définitif waaye ay résultats yoo xam ni daf ñoo concerné cent pour cent bi ñu fi toogee ak léegi ndaxte ville de Guédiawaye deux mille vingt deux mille vingt ba deux mille vingt deux fonds yi ñu dippee ay fonds wu PACASEN ville de mosu koo utiliser mosu koo jëfandikoo ñun bi ñu ñëwee yàlla dogal deux mille vingt lu ci tolloog juróomi téeméeri millions ak ñaar fukk ak juróom-ñaar di cinq vingt sept millions def nañ ko ci lu jëm ci wàllum investissement dugal ko nag ci taaral dëkk bi ak liggéey ay bërëb ci dëkk bi liggéey yooyu bu ñu ko xaymaa weddi gis bokk ca moom ngeen di seen nii daanaka liggéey léegi mu pare ndax ñu ngi toll à hauteur de quatre-vingt pour cent daanaka ñu ne liggéey yooyu lan la pavage bi nga xam ne dañu koo jëlee croisement Béthio Thioune dem ak moom ba rond-point Canada nga jëlee foofu jóge croisement Dial Mbaye dem ba marché Mame Diarra xaalis boobu ba ñu ko xayma toll na ci ñaari téeméeri million ak fanweer ak juróom-ñett yu toftal as di deux cent trente-huit millions quatre-vingt-douze mille pavage bi loolu lañ ca def ci lu jëm ci wàllum xaalis fourier municipale bi nag mu ngi toll ci cent cinquante cinq millions cinq cent quatre neuf cent soixante dix mille ci loolee la toll lu jëm ci wàllum centre socio éducatif bi toll ci trente six million sept cent soixante sept mille six cent quatre lu jëm ci wàllum aménagement paysager bi ngeen gis ci biir mairie bi fii yëpp suuf la woon ñu defaraat xaalis ba ma nga toll ci cent trente quatre millions sept cent cinquante six mille francs CFA kon boo xoolee ville de waaye ci deux mille vingt bi li mu def ci wàllum investissement toll na ci juróomi téeméeri millions yu tegas lëf bu ko defee nag kon résultats yi bu ñu sañoon mu nekk ay résultats yoo xam ni daf ñoo concerné ngeen à cent pour cent waaye it mu définitif ba ñu fi dikkee ak léegi nii la seen nañ ko nag am foo xam ni foofu la ñu classé ville de Guédiawaye ñu waxaat na ñun bi ñu fi ñëwee ak léegi nile lu jëm ci wàllum fonds Pakassine yi nga xam ne moom la ñuy nattal nit ñi ville de waaye toog na daanaka lu jege juróomi atu yàlla benn dërëmu Mali defuñ ko ci wàllum investissement ci fonds Pakassine yooyu waxuma la sax fondement mais dañoo lancé wul sax marché ñun bi ñu ñëwee la ñu lancé marché société yi soumissionné mbir mi dem ci préfet mu laaj avis yu DCMP ñu accordé que wane ni lii lu jaar yoon la ñu lancé suñuy marché marché yooyu tey moom lañ leen yegge nii kon nag ñu gërëmaat encore population bi ndaxte nag léegi léeg nga gis ay nit ñoo xam ni dañoo bëri nu ñuy interpréter loo xam ne dañu koy génnee ñun nag fara képp ku ñu waxaan nañu ñëw leen ngeen wax ñu lan nga liggéey li ak lii ak lii nous on préféré di liggéey rek na ñun taskatu xabaar lañ mënoo fi ne di wax di wax di wax di wax di wax di def ay promesse ba falu bëgg continuer di wax di wax di wax moo tax boo leen seetloo Ahmed Aïdara ba mu faloo ak léegi lu jëm ci wàllum liggéeyu ville de Guédiawaye néew na lañ koy gis muy génn ci réseaux sociaux yi di wax lii ak lële waaye lii nag dafa fekk ne da di farata parce que balaa nga naan naam ne fa te mbirit buñ koy natt natt la ca te yow am na ci yenn yoo xam ne booba fekku la ca ville de Guédiawaye ban année la gëj a utiliser ay fonds pakaseen ñoom ñu ngi ñuy déglu nañu ko laajte toog nañu juróomi at dërëmu Mali investir wuñ ko fii nii ci biir ville de Guédiawaye ñun bi ñu ñëwee ci 2023 la ñu def investissement bi nga xam ne toll na ci genn wàllu milliard li ko def fii ci ay ville dañ leen di bu loolu weesoo ville de Guédiawaye dafa am ñenn ñoo xam ne bu ñu yeggee ci wàllum compétition ñooñu lañ leen war di leen méngaleel waaye am na ci ay tund yoo xam ni ñu am ay budget plus de cinquante milliards ñuy juróom-ñaari milliards ñuy fukki milliards ak nangam bokkul ak ville de waaye bi nga xam ne masse salariale am rek ëpp na. quarante cinq millions le mois l'année plus de presque six cent millions te amul benn fonds boo xamante ni nii dañ ko koy dimbalee wala di ko ko jàppalee bi Ahmed Aïdara ñëwee ak léegi ran wii ñu def nag moo waraloon tey waxtaan wu gàtt wii ñu bëgg ko leeral nit ñi parce que weddi gis bokku ca réalisation yaa ngi nii yéen a ci tegal seen bopp seenu bët muy pavage bii jugee croisement Béthio Thioune dem ba Canada jaal Mbaye marché Mame Diarra centre socio éducatif bi ñuy tabax di ab l'école daara war cee tàggat suñuy doom aménagement paysager wu ville de Guédiawaye ak fourrière municipale bi nga xam ne daañu fa jëmmal ñaari taax te ngeen gis ko nii lii fekkuñ sax ñu commencé ci dara ñun ñoo ko fondement ci benn atu yàlla def investissement wu cinq cent vingt-sept millions kon loolu moom weddi gis bokk ca lan nga liggéey lan nga liggéey lan nga liggéey li ñu liggéey nag mi ngi nii lii nag moo concerné wàllum classement bi bu beneen yoon yoonee daañu ñëw ci wàllum éducation ñëw ci wàllum santé ñëw ci ñëw ci ñëw ci ñëw ci parce que Cour de comptes moom fépp lay càmbar te it sant yàlla nag parce que coow li bari na am na yenn yu fi jàll mënoon nañoo toog bañ ne Cour de comptes kat jàpp nañu ñoom ay dara ak waa mairie Guédiawaye ci wàllum luubal ak lii ak lii ak lii ak lii ak parce que Cour des loolu tamit seen liggéey la mais ñun loolu ragaluñu ko te dawuñu ko parce que ñun xam nañu fa ñu bokk te xam nañ tamit ñan lañ jiite te xam nañ tamit ñooñu nu ñu rayee seen bopp ba jiital ñu kon nag tey bu ñu toogee ba lii nii xew laaj na ñu leeralal ñi nga xam ne ñoom ñoo ñu yónni am nañu kon mbégte tey indiwaat ay gindi nag ci lii di toog nag di xaar encore une fois résultat yi nga xam ne daf ñoo concerné ñin à cent pour cent résultat yi nga xam ne tamit dafa définitif deux mille vingt du premier janvier au trente et un décembre ñu ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp wasalaam.